Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi mu di ab attaque bu nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci kaw ki nga xam ne rek moom moo di Ngone Saliou ak ki nga xam ne rek moom moo di Maty Sarr ñoom ñaar ñi nag gannaaw ba ñu daal di convoqué rek ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany en tant que ku nga xam ne rek mën nañ politicien la jamono bi ñu toll nii fii ci biir réew mi niki tey ñu convoqué woon ko nag ba njaboot gu bëree bëri demoon toppi ko pour rek fa yéene ànd ak moom ñaar ñi nga xam ne nag mën nañ nikki tey di ay journaliste yoo xam ne rek seen bés tàng na jër di nettali ci seen làmmiñ doore ko ki nga xam ne rek moom moo di Ngoné Saliou moom mi nga xam ne rek yëkkati na ay kàddoom di xamle que ne yoo xam ne rek ñi ngi ci terrain bi kii di Bougane ñëw wàcc ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay militant wam moom mii di Ngoné Saliou dikk nag ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di yi gannaaw ba ñu dikkee rek comme niñ ko xamee ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu gis leen ñoom ñëpp rek ñu toog di waxtaan mu commencé ci kenn koo xam ne rek identifié nañ ko bu baax baax daal di dikk daal leen di yàq lu mel ne keteme xas leen xamal leen ne ñoom ñëwee kat mën nañu ñuy jaay seen bopp lañ moom mii di ngóone daal leen di wax ne leen baal na leen gi nag la ju li nga xam ne rek moom moo di ay saagaam te ñoom ñëpp rek mën nañu moom mii di ngóone saaliw yàgg na couvrir li nga xam ne rek moom moo di ay événement am na ci koo xam ne xàmmee naa ko muy maire bi ñuy wax Aïda Seck di responsable de femmes bi nga xam ne rek Kër Massar la nekk bokk ci ñi nga xam ne rek da doon saaga di leen di euh, provoqué bu baax a baax mu mel ne ñoom dañ leen a sant li ni mel bu fekkente ne ci état de droit la ñu nekk bu fekkente ne sa leader dañ ko convoqué yow li la war mooy nga dikk accompagner ko mais nag bu fekkee ne da nga bëgg a ñëw pour rek wane wala bokk roy ci beneen leader boo xam ne rek bu daan ñëw naam bu fekkente ne ñoom seen njaboot gi bariwul loolu wante kenn amut ak problème ak ñoom rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di taskatu xibaar yi même bu fekkente ne ñii nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi li ñuy wax intéressé wu leen nañ leen bàyyi ñu yëkkati li nga xam ne rek moom moo di seen kàddu def li nga xam ne moom moo di seen liggéey wante nag koo xam ne mën nga dékku kii di président Macky sàll dékku ay nervi yoo xam ne rek ñu ngi fi woon moom mii di Ngoone Saliou dékku police ak gendarmerie du ay simple militant yoo xam ne rek tekkiwuñ lu bari ñooy dikk bëgg laa yàqal li nga xam ne rek moom moo di sa liggéey ne leen du ngeen fi waxee te ñoom dañoo ñëw pour liggéey te amul kenn koo xam ne mën ngaa tax ñu daal di jóge fii nii te moom bugaan mënu leen a yab te tamit mënu leen a yablu ndax li tax ay militant wum waruñu ko mën a yab ndax yàgg naa couvriral moom mii di Bougane te kenn mësu koo wan lii di ñàkk fayda ci kaw ki nga xam ne rek moom moo di ab liggéeyam kon nag lekkuma xaalisam taxawaaluma ci bureau ma nekkul ne man maa ko soxla mais au contraire moom moo ma soxla di kàddu ki nga xam ne moom moo di Ngoone Saaliwu ndaxte ay mission la ko yàgg sant muy dem di ca dugg kon nag amul kenn ku sañ a taxaw ne ko fii doo fi wax wala danga fi wax li xaar nag mooy est duñ ko fi téye ñu génn wax ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu sunu gaal leen metti nag mooy femmes yi nga xam ne rek dañoo daal di engagé kii di ngoone Saliou moom mii nag mi nga xam ne que ne buy plainte moom buggaan ci boppam lay plainte parce que tamit plainte di tax mu bëgg koo identifier jox ko ko ndaxte ñëpp ñoom lañ àndal te moom moo leen fi indi te ku ci nekk otoom la jóge jóge ci këram ñëw rawatina nag responsable des femmes ak yeneen i jeunes yoo xam ne rek nemmeeku nañ leen moom mii di xam ne que ne xàmmee na leen xam na seeni tur wante naka Bougane lay plainte parce que moom dina leen mën a identifier bu baax a baax moom mii di Ngoné Saliou di xam ne que ne toppandoo dafa bari ay façon lool ndaxte ñoom dañoo bëgg a topp yoon wi nga xam ne rek moom la Pastef jaaroon wante lii nañ xam ne safewul bariwuñ amuñu stratégie lii lépp ñi ngi ko doon xaar gënoon naa metti te teewul daal dinañuy def li nga xam ne rek moom moo di seen liggéey kon nag nañu leen a décourage découragé loo ndaxte fii ñu taxaw jël si ay information kase moo leen fi taxoon a jóg cong gi nga xam ne nag moom lañ ko cong moom mi nga xam ne que ne tiit kase moom moo ko waral ndax ci nekk takk di rappi rappi jël saagam ñëw te tamit mën nañoo jàpp que ne dañ ko dul gisaat tax ñu daal di gën a tiit loolu moom moo tax nag Maty Sarr daal di jël kàddoom di wax que ne journaliste de terrain boo koy wax kenn du ko wax te tuddoo ki nga xam moom moo di Ngoné Saliou ak Mati kon nag ku mën a dékku ay bal dékku ay grenade lacrymogène wuy ji convocation mën nañ ne di tiit nekkul ne moom mooy tax doo def sa liggéey gannaaw bi ñu wàccee ci taxi bi taxaw benn waay boo xam ne rek xàmmeeku na ko daal di koy woo moom mii di ngoone saaliwu mu ne ko naam mu taxaw di jàmm sant ak moom di ree beneen waay habillé ci t boo xam ne rek bu jaune noir la xàmmee moom moo di ay photoom jékki-jékki tëlle fee wax ay baat yu ñaaw yoo xam ne rek mënuñu see jaaraat traité leen lu nekk mayu leen sax fu ñu taxawee rek daal di répondre moo taxit ñoom jëluñu leen doon au sérieux di kàddu ki nga xam ne moo di mati jël seen sa seen ndox yi sotti leen ko jël seen saag yi topp leen comme koo xam ne rek da nga doon rëbbu. moo tax nag moom mii mu ngi ne que ne luñ leen def defuñu leen dara rawatina ay maire yoo xam ne tekki dara yoo xam ne ratt nañ li nga xam ne moom moo di seen avenir taxaw fii nit ñi ñëw di leen di dooleel bokk ci saaga yi di ñu saaga di ñu wax naka su dul noonu ba pare ñu taxaw fii war a def suñu déclaration de presse ñu ne du ngeen ko fi waxee parce que ñoom nee nañ ñii duñ daal di rétablir li nga xam ne rek moom moo di événement yi nga xam ne moom moo fi am ñoom ñii nag ñi nga xam ne que ne ay sénégalais lañ juddoo fi yaroo fi màggee fi ay sénégalais yu tekkiwul dara dikk bëgg leen a xañ li nga xam moom moo di seen àq ak seen yelleef nekkul ne ñoom ñoo leen fayal li nga xam ne moom moo di journée bi nekkul ne ñoom ñoo leen di utal sens interdit fii ci biir réew mi dañuy nax seen bopp dañuy nax seen bopp te nag ñoom xamuñu sax kiñ amal affaire ndaxte lii duñ ko bàyyi noonu mu jàll ndax buñ leen bàyyee mu jàll beneen yoon dinañ ko amaat te nag li ci jik militant Pastef yu jik si Ousmane Sonko xaajul ba leen siy jik ndax ñee dëgg lañ doon xeex te ñii ay naafiq lañ ndax ñi ngi woon nit convoqué ko xamagoo lu ñu koy doxee ay journalistes ci dikk pour doxee ay information xam le lan moo xew ci biir réew mi ñu ne kenn du fi waxee ñoom ñooy kan dinañ xam nag ne la ci kanam raw li bët ndaxte ñu ngi nii ci kanam cybercriminalité dinañ dugg plainte leen dem ci kanamu justice même bu ñuy raam duñu demande pardon sax dinañ dem ci kanamu yoon ndax tey liñ def dafa salte dafa ñaaw te bu fekkoon am nañ tuuti kersa sax wala tuuti loo xam ne moom la ñu rusee jigéen duñ doxale nii jëmale ko ci suñ kaw comme que nag def ñu leen dara ñoom ñoo jug ne dañuy attaqué non seulement ñoom bu fekkente ne dañoo gis ne dañoo am ay carte carte 24 dinañ ko génne day accusation yoo xam ne jël nañ ko teg ko ci suñ kaw wala bokk dinañ s'ouvrir ci li nga xam ne moo di prison bi ndaxte ci dëkk yoon la ñu nekk te nag fii la ñuy taxaw duñu daw yootaa ndaxte lépp loo xam ne ay kàddu la yu ñaaw yu njëkkati teg ñu ko dinañ ko daal di payer ndaxte nag bu fekkente ne simple rien yi ñoom ñoo fi war a fas taxaw daal di ñu delloo gannaaw kon xam nañu ñun dellooguñ gannaaw ndaxte nag dinañ rester tranquille ci li nga xam ne rek moom moo di seen coin ndaxte ñun pareeguñ te tamit xalaatuñoo pare. bañ paree nag gis nañ que ne lii di Bougane Gueye Dany moomul nit ñi ay journaliste ak ay caméraman ñoo fi ëpp ñi nga xam ñoom ñoo di ay militant woom kon nag sagam Ousmane Sonko ba muy jàmmaarlu Macky Sall ñoo nekkoon sur le terrain. di naan ay lacrymogène ñu naan danañ ñu tëj te taxuñoo noppi kon nag du ne Bougane moo ñuy teree def li nga xam ne moom moo di suñu liggéey wante nag bari na suñoo xam ne sax ay journaliste lañ bañ déggee li ni mel dañoo sol seen dàll dal di ñëwaat fi nga xam ne rek moom moo di place bi pour rek àndandoog naqar ak métit bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni moroomi journaliste ndaxte Bougane nit la na xam ne yëfi nit la war a def te nag am nag affaire ñu mat a amal affaire Ngoné xam ne moom mooy jëf ñu ñaaw jii nii jii nii te tamit duñ leen bàyyi benn yoon ndaxte Bougane dañoo jàpp que ne dafa am lu nekk ci gannaawam wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo di militants yi dafa am ñu nekk seen gannaaw ndax jëf ji jëfi ay nervi la attaque ay nit comme ça bu fekkente ne waa kër Sonko lañ sax ñun ñoo tey ndaxte tamit amul lenn loo xam ne tey war ngeen ñu koo mën a jox kay leçon yoo xam ne yu ñu war a mën a tiire la ndax tamit muñ ngeen war a def moo xam ñi fare ci nga xam ne ñoom ñooy Ousmane Sonko wala bokk ñi fare ñi nga xam ne ñoom ñoo di bugaan lu ci manti am mooy que ne jamono bii ñu toll nii daal yëf yi mi ngi commencé di tàng lool rawatina nag ci ki nga xam ne moom moo di bugaan mi nga xam ne lu jig njaag moom moo di njaag mën nañ ne moom moo waral li ni mel moom moo di nday mbill gi ndaxte lépp ci moom la soqi ko moom mii di Bougane mi nga xam ne convoqué woon nañ ko niki tey mu dikk gannaaw nag ci dikkam ñu daal di fi attaqué ay journaliste attaque boo xam ne bu méttee métti la ci kanam cybercriminalité ñu bari sax ñu ngi doon yuuxu di àddu jëmale ko ci li nga xam ne rek moom moo xewoon bien vrai que ni mbir mi moom jàpp nañ ne jaxasoo bu méttee métti sax amoon na en tout cas lu ci manti am dinañ xam ne rek moom moo di actualité bi di leen toppal xibaar yi ci diggante ki nga xam ne rek moom moo di Ngone Saliou ak Mati Sarr ci seen diggante ki nga xam moom moo di Bougane ak yenn ci ay militants mën nañ ne sax ñenn ci ñi nga xam ne dañoo fare ci langu politique gi sax ñi ngi si doon dugg ku ci mel ne Assane Diouf gis nañ ko si wante kat ñii di journaliste yi mën nañ ne kenn jëmu ñu ndaxte dañoo taxaw teemu pour rek fa seeni jël li nga xam ne moom la ñu moom te kenn du leen ko yóbbul kon nag foofu la ñuy yemale kàddu gi di leen di jaajëfal fa seen leen toppal li nga xam moom moo di information yi ba beneen ñu di ci yeneen jàngat jaa ngeen jëf